waaw asalaamaaleykum amateur de football yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam des ziar bu baax a baax ñu ñëw ci actualité bi xam naa dañoo xaw a retard mais ñoo ngi jégalu bu baax a baax ndax dañoo amoon quelques jafe-jafe rek

déwén Sheffield day nek fofé ci prime League mais eh, Iliman limu mu yàggoon a bëgg mooy dem fulé ci Marseille loolu nak day nek réalité ndax Iliman Ndiaye day quitter définitivement fofé ci Marseille mu nek euh, coup bu baax ndax Marseille 18 millions d'euros la ci la ci def vu euh, qualité yu Iliman Ndiaye vu son talent je pense que ne eh, Marseille euh, jënd na joueur bu baax vraiment même si que yenn ci sénégalais ñi ngi wax que né bu ñu sañoon mu Sheffield euh, jouer fofu Premier League ba championnat bu anglais ba mais dem na Marseille choix wam na te dañ ko koy nangul euh, et je pense que Marseille club la je man abi man na na Iliman jour le bois xamante il a beaucoup de qualité et que mon na adapté au championnat français bi parce que France le judo euh, et tout donc jaar na Marseille comme na foofu bu baax a baax mën na euh, malgré que ni. Euh, Marseille équipe boo xamante ne dañ lay laaj lu bari dañ lay exiger lu baree bari mais je pense que ne profil bi war naa mën a euh, des toj Marseille vu que ne également Dioum ak ak Ismaïla Sarr moom maa ngi koy xaar bu baax a baax Ismaïla Sarr euh, Iliman Ndiaye jël bal jox ko Ismaïla Sarr mu dawal maa ngi koy xaar.